fekkoon ne moom rek moo am ci procès bi loolu rek defoon na tey procès bi wane ne seetal na le wane ne conspiration moo am mais dafa am lu ma waxoon benn ci benn euh, site de la place bu ma kii yoon ma ne leen Baye bay Niass dama ko jàppee ne idio utile la teguma ko ijo mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw aji Sarr seen ijo utile la mooy daf leen a defal li nga xam ne moom moo leen gënal defal leen lu mu leen gënal weesuwut tey benn audio boo xam ne 18 minutes Mamour Diallo li ci wax lu leer naññi Adji Sarr di ci wax lu leer naññi kenn mënul woona wan ginnaaw ojo boobu pour dem ci beneen ñu fexe ba inondé ak ci noppi askan wi yeneen ojo yoo xam ne mu naan ki yëma laal fii tudd ci ñu mën cee tudd ñu naan ay Ahmed Khalifa Niass ñiy wax ay Bougane ñiy wax leneen dama ne woon bu demoon sax ba ba neex leen ba ñooñu sax mënuñu téye seen bopp danañ fi romb ku mel ni Adji saar léegi loolu bi mu ñëwee kon moo mën a may benn juge mu taxaw ne du ma déglooti benn audio te alors que audio 18 minutes bi kenn waru ko woon a ignorer loolu mooy li nga xam ne tey moo feeñ ci nopp sénégalais yi ba nga xam ne loolu la ñu teg fii nag Sénégal bàyyi Sitor Ndour ci anam yi koo xam ne tey bu ñuy wax mooy fukki at ak juróom-benn la am koo xam ne tey yaa ko yor sa kër tey bu ñuy wax contrainte tey li ñuy wax ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko Adji Sarr ci Ndeye Khady dafa doon liggéeyee Ndeye Khady du ndayam du baayam te ba mu bëggee génn génn lan la ñu lay mooy damaa joxe prétexte ne damaa ëmb pour génn kan nga yab yu waroo yëpp ci ay waxam dara loo xam ne ni ciy waxam lépp waroo tey perception yi mooy li ñuy wax njortu li li askan wépp xam tey mu leer parce que nit ñi duñu ay dof lii ñu dégg fii tey ba mu yegg mooy te ma gisaat ci ñi doon plaidoyer def plaidoyer ci avocat aji Sarr yi mu ne certificat médical bi pour bévul ne viol amut xoolal loolu maanaam dem ba ñoom ci seen bopp ñuy wax man pour man loolu a toog nga euh, xam nga bu avocat Sonko yi ñëwoon coow li day bari xëccoo bi bari déserté nañ bàyyi leen noonu ñoom ay simple témoin ñoo dajji li ñu nekkee soo déggee tey maître ak ñeneen ak ñeneen ci li ñu waa mais seen défense bu ñu résultat bi muy jur nii <laughs> bu baax la noo résultat bi mu jur nii gis nga li am ay témoins yoo xam ne mel ni ñoom ñoo def droit mel ni ñoom ñoo jàng droit ba di ko jàngal maître avec tout le respect bu ma ko wax xam nga dafa am lu ñuy wax di ci jafandu gis naa maître di ko wax léegi mooy li nga xam ne mooy rapport médical bi nga xam ne moom la docteur Alfouseyni wax wax ne def na prélèvement daal ne am na sax sperme vivant bu fa nekk sperme moom la ñuy wax ci wolof am wasal muy dund mu fa nekk man dafa am loo xam ne wax naa ko tey nit man ngaa fekk ci moom sperme te viol amut nit mën na def pénétration ñoom ñaar ñu def baane li ñuy wax rapport sexuel te violé woo ko loolu benn la waaye nit mën ngaa fekk sperme ci biir fam ne te rapport amut xam nga lu tax xam nga ñu ngi fi wax ba wax waxu massage euh, finition wala leneen ak leneen góor mën nga ko para para nañ ko wax mu leer parce que ay wolof la ñuy wax bu ñu ko waxoon tubaab du metti mën nga ko para para balay génn génn ci moom nga xam ne lii moo ko moom loolu moo ko fa andi woon sëyut ak yow nangam nga jël loolu dugal ko saw xel bu docteur xoolee dana ko fa gis kon gis ko fa prouvé wul ne viol moo am viol lañ ñu wax ne Ousmane Sonko dafa viole kii moral bi ñu bëgg a laal fekk fa viol fekk fa sperme sperme kan la kan moo xam am na déedéet docteur Alfousseyni certificat médical gi li mu wax mooy kii jonjoowul ci ñaari fan yi weesu maanaam bés bi mu waxee ne maanaam dañ ko violé ci ñi ca bés ba ko gétt weesu ko foofu jonjoo amu fa la ñu wax mooy kii ba mu xamee góor yàgg na daal ne jonjonte maanaam nuñ koy waxeeti maanaam euh, baane gi mu def maanaam euh, désirir une désirir ancien de treize heures à quatorze heures mooy fa mu situé wu fa mbir ma situé wu tey boo ko defoon comme dans une aiguille de montre xëlaam bi muy la ñuy wax euh, loolu ci ku jigéen noonu la tudd ci wolof xël la wa ci kaw nekk midi bi fi mu toll nii fii fa la jonj ko xotti ko xotti ko ba nekk mooy de midi à treize heures bu ñu euh, yóbbaale nit ñi ci yooyu ñuy wax mën nga ñëw si charge bi procureur bi charge charge non loolu chargé moom ku mu ku neex ñu ne la fii li fi nekk ci xeer yëpp loo bëgg a jël yàpp waaye bis boo demee fee romb gardien bi nag su la jàppee yaa xam nga fekk gardien bi fii mu xam ne lii moomoo ko mu ne la teg fii kon li nga sëf yëpp tàggul ne yaa ko moom te moo ne fii nga nekk nii ay mango yu jal fii nit ñëw fii ne la loo mën a jël jëlal loolu laay wax waxu procureur bi nga génn fee ñu ne ah booy génn kat gardien bi dana la contrôler gardien bi bu la nga ñëw ñu ne la ah yow danga ngaa fay nga ne fayoo dañ lay wax tegaat fa doo yóbbu dara. kon procureur bu ko neexee mu chargé lenn rek ñaaw ñaawlu mooy la fait que procureur di wax euh, kii naan ko bu dul kii xanaa sa jëkkër la loolu lu ñaaw la gis nga même loo mën a jàngati ci meneen réew ak yooyu suñu ko andee fii muy justice nañ ko sénégaliser nañu xam ne ay sénégalais la ñuy waxal jekkut jaaduwul ngay taxaw ak nit loolu sa manque de respect pour man loolu euh, ñi nga xam ne ñu ngi défendre jigéen foofu war nañ fa teg procureur bi ñu traduire ko en justice parce que loolu baaxul parce que dafa am lu muy day wàññi war may jigéen loolu rafetul parce que loolu mënoon na def tout sëf loolu léegi nag li nga xam ne moo fi am ñun ñëpp dafa am ku ñu dénkoon suñu réew tey waroon nañu épargner lii procès bii tey ñaata wakkan la faat fukk ak juróom-ñeent directement ak yeneen ñett yoo xam ne indirectement loolu tey doon lu ñaaw loo xam ne nii tey Sénégal waru ko woon a xam procès bii nit dama ne la mënoo bàyyi si Sitor Ndour ci anam yii nga xam ne moo fi am kam ko seqal fukki at juróom benn la am yaa ko yóbbu sa kër mu di fa fanaan nga yeetal say doom ca kaw wàcc bi nga wàccee mu ne da ngaa jotee ak moom tey kooku kan moo ko gis kanamam yéen njortu li kii même bu dee dañ ko violé Adji saar viol gi jig na ko parce que tey la gën a belli bañ na ko ba ci loolu la avocat am di wax mooy daa belli daa nangam ak nangam muy euh, fël-fëlaale di sànneeku lu ko neex pour wane ne nangam ak nangam procès moral biñ doon wax tey et après boo jëlee salfaañe moralité Ousmane Sonko pour lan nga ci jublu et après. mënoo ko tëj ci lii sànq say propos yaa ngi wax waxu Maham Diallo dafa waroon teew fii moom oto bi bi ñu bi ñu doon jël si kii lu mu mhm. oto Maham Diallo kon lan moo doon Maham Diallo war a ñu boole nga bu muy wax ak Adji Sarr. loolu benn déedéet non non si parce que audio yi yow xam nga ne moom la moom la wala du moom. loolu mooy li nga xam ne moo am. waaw kay di leen jaajëfal bu